salaamaaleykum mbokki internet yi safo tey bàyyi xel seen site bi ñu defee 24 actu Sénégal ñoo ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di ko jaajëfal bu baax ci topp ak safo gi ñuy safo tey bàyyi xel seen site bi di 24 actu Sénégal tey nag euh, seen émission bi ñu duppee li ci réew mi nga xam ne kenn du ko walle muy am chaque 15 jours yu ne di fukki fan ak juróom yu nekk di dalal tey itam ndaanaan ju nekk rawatina fii ci dëkk bu sell bi di Touba tey nag ñu dalal seen euh, gan gu mat gan muy euh, sëñ Bass Mboup Bass nekk cogère bu au niveau département départementale euh, waaye tey tam nekk ci euh, APR ñu gën koo xam tey itam fii ci dëkk bu sell bii di Touba xam naa bala ñoo xus ci waxtaan bi rek dañuy bàyyi sëñ Bass mu nuyoog mbokki internet yi safoo seen site bii di 24 actu Sénégal. waaw salaamaaleykum si maa lay nuyu di la siyaar di la jox sa wàccuwaay di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñoo ñu nar a déglu di nuyu sa technicien yi waaye di jiital ci nuyoo bi nag xalifa général de Mouride. ak mbooleem kilifa yi nga xam ne ñoo ne ci biir dëkk bi muy kilifa diine yi ak kilifa administration yi ñoo ngi nuyu ñëpp di nuyu tamit ñu ngi xam ne ñoom laa bokkal parti di ci jiital kilifa yi su ma si tuddee nag euh, honorable Matar Diop tudd ci ministre de conseil Cheikh Abdou Bali tudd ci soxna Amy Mbacké euh, tudd naa ñëpp maa ngi teg loxo bi seen nuyoo ñu jaarale ko ci ñëpp di nuyu ndaw yi nga xam ne ñoom laa bokkal commune bi man euh, coordinateur COSER communal la bu Touba maa ngi nuyu mboolem ndaw yi nga xam ne ñoo ngi ci biir COSER bi di leen jox seen wàccuwaay di leen màggal fu ñu mën di ndax ñu ak ñoom ñoo bokk liggéey bi ñu wóolu ma teg ma seen kanam waaye di teg nuyoo bi ci loxo suñu coordonnateur départemental Serigne Mbacke Faye mu jàllale nag suñu coordonnateur national yi nga xam ne président rek lay liggéeyal gis nañ depuis président teg ko ci bopp ndaw ñi activité yi muy def wax dëgg yàlla ak jéego yi muy def tamit pour ndaw ñi gis seen bopp ci li nga xam ne moom la ñuy def ak euh, formation bi nga xam ne mu ngi koy def ci ndaw ñi pour li nga ne mooy valeur républicain yi ñu xam ko ba mën koo sàmm kon ñoo ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp waaye di nuyu nag suñu président de la république son excellence président Macky Sall sans borom may ko jàmm jërëjëf sëñ Bass euh, ci nuyoo bu am solo boobu nga xam ne yëkkati nga ko xam naa rek euh, suñu question bu njëkk day daal di dem ci jàngoro ji nga xam ne moo lëmbee àddina wërngal këpp di jàngoroy Covid 19 ñu gën ko xam ci coronavirus. nga xam ne président Macky Sall jëlal na fi ay mesures jamono yële weesu ne waa dañuy séddale am dund daal jàppalee ko askan wi nga xam ne ñoo toogoon ci seen i kër mais nga jàpp ne sëñ Bass est-ce que ceeb bi yéexul ndax boobu ba léegi tey itam kenn gisul ceeb kenn déggul ceeb fan ceeb bi waaw. question boobu dana ma neex lool ndax nag wax dëgg yàlla président de la République bu fekkee dem nga ci commission yi ba gis ñi nga xam ne ñooy bénéficiaires yi am ceeb yi da ngay xam ne ñii ñu ko yeyoo lañ te xam ne sant nañ président de la République malgré mën nañoo wax yéex na ndax bi ñuy def euh, délai bi dañ ne woon 15 jours la ministre bi waxoon malgré yéex na mais nag ñëw na loolu moo ci ëpp solo yaakaar naa importance bi mooy ñëw na yéex bi mën nañ ko discuter. du lu gën mais nag comme ñëw na nañ ko sant yàlla bu baax a baax Touba li ñu waxoon war na fee ñëw yëpp ñëw yaakaar naa le ministre bi waxoon àgg nañ quatre-vingt-quinze pour cent ci ci distribution communes yi fi mu toll yaakaar naa balaa semaine bii jeexee yaakaar naa lu ci bëree ci Sénégal dana jeex ndax man fële ma féetewoo au niveau Bokkatul Moubarak maa ngi nii justement ci commission distribution bi laa bokk bi nga xam ne moom la village bi tànn ñu ànd fa ak njiit suñu chef de village Baye Saliou Dieng ak son secrétaire Moustapha Seck commission bi nga xam ne yebal nañ fa yebal nañ leen fa ñëpp ñu ànd ak ñoom di liggéey vraiment depuis booba ba léegi extension bi joxe nañ ko ñoo ngi ci urine bi presque bu ñu defaatee trois jours wala quatre dinañ gis ñu ci benn incedent boo xam ne bu majeur la bu ñu bu ñu bu ñuy noté waaye li ci ëpp solo rek mooy askanu baree bari duñ comprendre parce que dañuy jàpp ne ñoom ñëpp war a am te xam nañ ne li ñu wax ne ñoom la ñuy jox ci ceeb bi euh, waxuñu ne ñëpp ñooy am dafa am benn parti bu ñu jox am benn parti bu ñu joxut dana metti ndax ñu bare bu ñu gisee kenn am keneen am dañuy jàpp ne dinañ am mais malheureusement noonu la demee mais xañ na beneen yoon Euh, président dina ñëwaat ñi nga xam ne amul woon mu continuer ak ñoom. mais sëñ bas est-ce que nga jàpp ne tamit ak lajjite amu ci ndax euh, séddale bi dafa des bu baax a baax na am na gox yoo xam ne yéen dem ngeen fa nu ci mel ne ay Ndindi nu ci mel ne ay euh, dëkk yu baree bari fii ci dëkk bu sell bii di Touba nga xam ne dem ngeen fa ba pare gaar bu ndaw gii nga xam ne fi la ñuy waxee nii dem ngeen fa mais dafa mel ne coow lu bari moo fa am ñii seen chef de village ñeneen ñi ñoo jël ceeb bi yóbbu ko seen i kër ñii moom ñu ñëw di bind ñoo xam ne sax xamuñu leen ca koñ ba ngeen yaakaar ne ak lajjite amu ci waaw mais xam nga bu fekkee lajjite am na ci tamit loolu dañuy xool fan la responsabilité bi nekk ndax responsabilité bi mooy président lu mu war a def def na ko wàcce ceeb yi ci commune yi commune yi ciblage yi ñaari façon ciblage rek moo am benn dañ lay ciblé ci urine bi urine bi bu ñu koy ciblé village bu ne dañ faa wàcc quartier bu ne ñun jox délégué ba ne ko tànnal nombre de kon yaakaar naa bu fekkee tànn nañ kenn ku ñu wërta tànn loolu responsabilité ba ci ñi doon tànn la bu dee station bi nga xam ne moo nekkoon si bu bees bi tamit ñi ngi ciy dolli mooy li nga xam ne moom lañ dolli ci exta ci ci ci ci bi muy station bi yaakaar naa loolu tamit bi ñu ñëwee dañoo tànn ay comité ci quartier yi waa comité ñoo tànn xam nga loo xam ne dañoo joxuñ ñëpp forcément ñi amut dañuy wax rek ne mais est-ce que tamit ku am ndey ku ma ndey amu ci ndax dafa mel ne am na gox yoo xam ne ba léegi ñoom déggaguñ ceeb ku ma am ndey ku Euh, ñii am ñi amuñu mais amul benn gox ci Sénégal boo xam ne amul loolu képp ku la ko wax amul information Sénégal Touba euh, bu ñu tànnee commune yi ci Sénégal yépp dañoo dañ leen a jox commune bu ne mbooleem village yu fa nekk tubaa li fi ñëw di di di di dañ ko wàññi ci village yi fi nekk village bu ci nekk ñu jox la gaar ba ndaw ngay wax ci Touba mosquée la bokk Touba mosquée quota yi bi buqatul am daaru mën naan am ko quota bi mel noonu la Touba mosquée am xañ na ñiy wax dañoo bokk ñi nga xam ne ñoom la ñoom moom la chef de village waa Touba mosquée tànn parce que matul waa Touba mosquée tey par exemple bu fi bu fi bu fi bu fi dix mille personnes dëkkee ñu bëgg fee jox benn mille personnes wala deux mille personnes ñi amul dañuy jàpp rek ne dañ ko def affaire kumbaam day communauté mais boo demee ci commission ba fañ koy séddale ba gis ñi nga xam ne ñooy nekk di jël si ceeb bi da ngay xam ne ñi ñu ko jox vraiment ñu mérité loo ko wala boog selon yi nga xam ne man fekk naa ko am naa ci information mais ba léegi tamit mbir yi dafa mel ne dafa des bu baax a baax ndax bu ñu demee fu mel ne Bosoobe gis nañ temps yële passé rek seen chef de quartier bi génn ne moom transporteur bi maam ñi koy yóbbu ceeb bi xaalis bi nga xam moom lañ ci waroon fay moom ci poosam la génne nga yaa yaakaar ne tey itam ñu mat teg ko ci ministre Mansour Faye budget boobu fa anamu ndax dafa waaw forage daanim xën nem la wala yéen da ngeen koo jël di ko laat ko seen i gafaga wala nu mu fa demee ministre bi lu mu génnee transport bi génne na transport bu mat bi ko ko yóbbu commune par commune Touba bi ñu indee transport bi ñu indee yëf ñoo ngi koy euh, stocké fee ci euh, escadron bi nga xam ne moo nekk ci yoonu Mbàkke bi booba la ci état wàcc parce que état diggoon na woon na ne dina ñëw ba ci commune commune yu bari nag ci Sénégal seen seen seen seen maire moom moo euh, assuré transport yi pour mu dem ci village yi waaye laa boog village ya ñëw jël si ko ci ci commune ba mais fii Touba comme dafa rëy village yi bari bi ñu waxtaanee ci comité comité bi nga xam ne moo nekk arrondissement ak ci njiital sous préfet maa ngi koy nuyu bu baax Mansour Diallo euh, ñu ne comme Touba dafa sori gox yi nga xam ne dafa sori nañ gox bu ne transport ba boo ko defee 1000 francs ak mi nee bari nga xam ne ñooy jële foofa ceeb euh, escadron ba yàpp ko ci oto yi bu ñëwee ci suur bi ñu distribué ñu nekk fa ñoom it euh, kuñ ñu ñuy génneel la tegal la ci sa oto wala ci sa saret loolu lépp boo ko boolee 1000 francs ak transport bi yaakaar naa képp koo xam ne jox nañ la walóoru 60 000 wala nangam transport boobu chef de village mënuñu ko fayal seen bopp wala chef de village boo xam ne mën na ko làmp ci ñu mel ne bokkatul duñ génne ñun xaalis bu toll noonu nga xam ne transport bi rek ñun presque ëpp na nga doog indi affaire mine bari yi doog a indi fere yi nga xam ne mooy nekk commission de distribution yi loolu du village bi ñoo koy génne di ko fay kon liñ mën rek mooy tànn tànn ménage yi nga xam ne ñoo am affaire yi ki ko ne ñu la joxeel 1000 francs loolu yaakaar naa waxtaan nañ ci dëkk bi yëpp ba juboo ci ñëpp ñi ñi nekk ci di coow rek du ñëw mal information parce que dëkk bu toll ne Sénégal kenn mënu fay def di laaj nit ñi xaalis loo xam ne tigoo ko fenn boobaa préfet mooy ñëw wala sous préfet arrêté la avant ñu koy def am nañ ci am nañ ci ndigal te xam nañu li def et ñi koy jël coowuñu ko ñi ci nekk di ko coow du ñoo ko am ñi xam ne ñoo koy jël ku ci ñëw ba nga expliqué ko ni ko 1000 nii la demee ceeb ba ca escadron ba la nekkoon village bi ñun ñoo jël suñu oto dem jëli ji ko village bi indi ko bokkatul ak ni mu soree après ñu jël mi ne bari teg leen di leen fay par sulni képp koo xam ne jël na si ceeb bi nga expliqué ko 1000 francs yi nii la demee gis mu ci koo xam ne sax discuté na ci ñi ci discuté nag mooy ñi xam ne rek seen yoon nekku ci euh, muy la am solo sëñ Bass euh, souligné ko lu jëm ci wàllum ceeb bi xam naa dañuy tëj bunt boobu jaar di jëmaat ci beneen buntu Euh, sëñ Bas xam naa fan yi kuy topp actualité yaa ngi nemmeeku wax yi nga xam ne mi ngi jugee ci Moustapha Cissé Lo di honorable député euh, ba sax ñu daanoon ko ay daan yu mat yu metti lool ci kawam dàqee ko waa APR waaye en plus te itam euh, moo ngi galère daal mu ngi mel ne amagul fu mu jëm yow nan ngay jàngatee kàddu yoo nga xam ne moom la yëkkati tegoon ko ci kaw xam Mbaye ak far ba Ngom. waaw xam nga maa ngi nuyu d'abord suñu papa Moustapha Cissé Lo ñun ñëpp suñu papa la. ñun ci moom lañu ñu jànge politique euh, ci APR bu bu ñu sotee fii parti bi ñun moom lañ doon àndal malgré moo njëkk taxawal fii Macky Sall pour di ko xeexal waaye ñun ñëpp moom lañ àndaloon euh, ba bi nga xamee ne nee na day dem sans si dem wate ji Dakar li xew ay incident la ay xuloo yu mag man duma ci dugg sama yoon nekku ci mais li ma mën a constaté moom mooy wax ji euh, du lu rafet ak fu mu mën a jóge ñoo ngi koy ñaawlu d'abord ñun ci parti lañ bokk parti bi dafa am ay instance ñun bokkuñu ci instance yu mag yi ñun ci instance yu ndaw yi lañ bokk muy instance SONES bi loolu yaakaar naa concerné wuñu sax am nañ ci nag suñu xalaat parce que parti bi ñun ñëpp ñoo ko bokk ndax suñu sañoon immense wu parti bi ak immense wu président de la république mooy république bi nga xam ne moom lañ bokk ñu Sénégal parce que république mënu ci ñàkk lié parce que APR mooy gouverner kon dafa loo xam ne bu xewee rek faaw day répercuté wu ci ñun duñ mën lu dul ñaawlu ko li ci des nag parti bi moo jël ay dogal ñun ay ay ay ay xale lañ yuy def politique soit benn parti bu tudd APR mu am ay texte ñu xool texte yi ba ne lii d'accord nañ ci kon tey lépp loo xam ne parti bi def na ko ñun dañu nekk en face ak parti bi ànd nañ ci di ñaan suñu papa Moustapha suñu baay la suñu papa la sa borom indi jàmm ñu waxtaan ba lépp revenir à normal wala bokk bu fekkee ne day bàyyi parti bi tamit lépp nekk jàmm mais lien yi nga xam ne am nañ ko suñu diggante ak moom ak am nañ ko ak diggante ay nit yi ànd ak moom parce que ñun ñëpp ñu doon mu jàngal ñu politique kóllëre ne dañuy wéy ko sàmm ou ñu bokk parti ou ñu ñàkk bokk parti mais ñun lépp loo xam ne parti bi def na ko moom en tant que ay sonat républicain parti bi dañoo engagé te fu parti bi jëm foofu lañ jëm loolu moom mooy li leer mais est-ce nga jàpp ne tamit ak parparloo amu ci ndax dafa mel ne yaa xam may moo njëkk a saaga Moustapha Cissé Lo après door a ñëw tontu pourquoi pas dañu jël mbir mi yëpp sëfaat ko ci kawam. waaw xam nga wax naa la ko léegi nee naa la man ay xulóowu mag du ma ci dugg vraiment du ma entré que nag ku nekk ci parti APR am nga ci xalaat. waaw xam nga li nga ma laaj ci kan moo tooñ ak kan moo njëkk a nangam ak farfar loo amu ci. vraiment man xaw ma ko tooñ xaw ma ko tooñut xaw ma ko njëkk a saaga xaw ma ko mujj li ma mën a wax daal mooy. saaga yi est du tamit li mu nekk ci parti APR moo tax jéem ko lijjanti bu nekkoon ci beneen parti ci amul loo ci loo ciy wax. parti bu mu mën a doon li ma man kay mooy lu lu lu ma jàpp ne lu ñu war a ñaawlu la ma ñaawlu ko kan moo tooñu kan moo tooñu nag yaakaar naa xam nga ki ñu ko war a lijjanti mooy justice bu fekkee jëm nañ ci justice justice danañ ko lijjanti bu dee ci wàllu parti bi la ñi nga xam ne ñoo nekk ci instance yi koy tranché ñooñu tranché nañ ko man ëgguma ci boobu niveau. est ce que jàpp nga ne suñu réew mi am na justice rawatina démocratie ndax bu ñu xoolee dossier ku ci mel ne Cheikh Yérim Seck bati plus nga xam moom la ci wax. li muy waxagum kenn xamul lu am la wala lu amul mais dañ ko jëndee ko ràpp ci kaso bi gis nañ fi ay ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne Cheikh Yérim jëloon nañ ko mais génnewaat nañ ko mais est-ce que loolu tamit du du du loo xam ne dañoo bëgg a ragalloo gars yi nga xam ne ñoo bëgg a dénoncer li nga xam ne mooy vérité bi nekk ci réew mi ñuy tëj seen i gémmiñ ngir rek bañ ñu mën a wax waaw xam nga bu dee ne yaa ci réew mi moom te am information xam ne Sénégal fenn la fenn fu lañ a tëj loo nit gémmiñam ba Sénégal te fenn fu ne la nit di amee xalaat du ko wax ba mu des Sénégal Sénégal moom yaakaar naa kaay ma jox la moo fi jafe waaye kaay ma wax la moom jëfewu fi euh, justice amul Sénégal waaw xam nga Sénégal nag dañoo dafa am lu fi am il faut nit ñi nangu ko gis nga nit ñi ñooy fonctionné noo xam ne kenn ku ne li nga bëgg a dégg rek ngay dégg la nga bëgg a gëm ngay gëm ñi nga xam ne dañoo bëgg a gëm ne justice amul ci réew mi mënoo leen wax lu gëm lu tax ne. fan la justice bi ci réew mi. waaw may déglu ñi xam ne loolu lañ bëgg gëm comme lu may wax nii xam nga yow mën naa mën naa jàpp. non démentiral la euh, euh, ñi nga xam ne ñooy seetaan 24 actu ne justice fii lañ koy laalee ci réewum Sénégal. de grâce ba ma bàyyee dinaa leeral lépp. bismillah de grâce ñu nga xam ne dañoo bëgg gëm ne justice amul ci réew mi mënoo leen koo gëmle mais gëm naa ne bu dee xam nga ni am réew di doxee séparation des pouvoirs moo am ci réew mi Cheikh mu sekk dafa génn ay révélation révélation yi mu génn diggam ak naar bi loolu taxul kenn woo ko dafa tuumaal benn corps bu nekk ci Sénégal di gendarmerie. loola yaakaar naa bu dee réew moo xam ne am na justice forcément dañ daa war a woo déglu la woo nañ ko déglu ko la fond de dossier ba xaw ma lu ca ne xaw ma lu tax ñu libéré ko xaw ma lu tax ñu may ko liberté xaw ma lan moo taxoon ñu ko gis naa daal ne woo nañ ko parce que jàpp naa ne wax na ne xaalis bi ñu jël am na lu ca man bu ma ko déggee nga dégg ko jàpp ne ñi doon def enquête bi ñoo sàcc xaalis bi loolu nag waxee ci réew mu toll ne république bu toll ne Sénégal yaakaar naa faaw si xam ne séparation de pouvoir dafa am pouvoir judiciaire dafa am pouvoir exécutif am jàpp naa ne ñi nga xam ne ñoo nekk di doxal justice bi avant muy àgg ca parquet ba bu mu àggee ci parquet procureur déglu ko siis bi déglu ko dañ ko bàyyi may liberté provisoire mu dem loolu rien à voir ak enquête yi nga xam ne moom mooy am police police ni mu ni ni mu jàppee lay defee def ay enquête dafa def ay procès verbal dossier Abdou Karim xurum faa noo koy dutee loolu justice sa wala num num num num demee xam nga Karim moom man maîtrise yu ma ci yëfam ndax man yàlla dafa dogal maîtrise yu ma ci yëfam lu bari yàlla dafa dogal man su fekkee nawuma la nëwuma la nawuma say jëf nawuma say wax du ma wu ci say mbir lu bari. nawoo ay jëfam nawoo ay waxam. non waxuma Karim damay par wax généralement képp koo xam ne ci kaw suuf man nawuma la nawuma sa doxalin du ma concentré wu say yëf tey boo iwtu woon fii koo xam ne nawuma ko ak lu man di wax du ma lire vidéo bi bu deen ay wi nga bëgg ci man doo ko am parce que mën naa fonctionné wu noonu. gëm naa ne Karim dafa def lu tax ñu jàpp ko gëm naa ko maîtrise wu ma mu def 100 pour cent parce que ma jotu nekk di topp Karim nag parce que gëm naa ne mënut a wax lu may jariñ. en tant que bu nekk ci réew mi amoo jotu yi ñëpp ay citoyen lañ ba ma jotu di topp Karim wax dëgg yàlla gisuma lu ma mën a dolli te gëm naa ne bu dee xam. li ma xam gëm naa ne xaw ko li ma xam ci république xaw ma ko kon au ma jotug toog di seetaan benn laay boo xam ne Abdou Karim Gueye moo koy def wax dëgg yàlla sincèrement parler au ma di topp loolu léegi nag justice la amal problème jàpp nañ ko gëm naa ne bu ñu ko jàppee dañ ko jàpp ci ay dossiers yu tax ñu war koo jàpp bis bu ñu ko waree bàyyi danañ ko bàyyi loolu rien à voir ak gëm naa ne moom da dafa am ñu ñum saaga la ñu wax ku xam nga sax cent pour cent lu mu wax ay Karim Gueye moom ak ay Assane wala ay lancé barke alxuraan du ma leen sax déglu parce que ñuruñu ma mais li ma gëm bu dee dañ leen a téye rek dafa dañoo def lu ñu leen war a téye te leen war a bàyyee leen bàyyi dégg naa ci ay avocat parce que waa ma déglu information ñu ne dafa feebar dafa def nangam ñi nga xam ne ñoo nekk pavillon spécial ñi nga xam ne ñoo yor euh, kaso yi ñoo gën a xam Sénégal dafa bari ñoo xam ne bës la ñuy wut di wut ku leen xam man nag kenn dootul wutee bës ci man ma lay may ay vie wala may def sa ay live di ko seetaan waa YouTube di la fay wala ngay wut yi pour Sénégal xam la man yooyu dama ci nekkut bu doon wut bës kenn gën a xam nit ñi nañ koy defee dafa am ñoo xam ne Macky Sall ñoru leen opposition ñoru leen seen weccet la ñuy wut ak seen i affaire loolu nag ko koy def man dama lay bàyyi nga koy def du ma la Bas ñu desiwaat tamit ci justice bi. rawatina ci dossier Moustapha Cissé Lo euh, Bas nga jàpp ne saaga du saaga rek lan moo tax ñu jël la Assane Mbuub ne ko ràpp ci kaso bi bàyyi fi Moustapha Cissé Lo muy nekk ci mbedd mi wala saaga dafa gën a rafet saaga. waaw mais xam nga yow dafa mel ne da ngaa bëgg jël temps justice nga def ko sa et puis man xawma Assane Diouf dafa saaga publiquement yaakaar naa ñu arrêté ko te c'est la première fois mu koy def Moustapha Cissé Lo bi ngay wax jàpp naa ne man ci parti bi laa ci mën a waxee lu nga xam ne parti bi dogal na ko ci lu ma ànd la su ma soñoon du am tey li ma bëgg mooy jàmm rek am ci ak nu man di demee ñu bokkaat parti ou ñu bañ a bokkaat parti naka la ci société di def ak lan la ciy xaar yow koy dégg nga ku mu amal problème dégg nga yaa xam nee na euh, dossier mu mi ngi euh, section de recherche loo xam ne na xamagoo fu muy mujj kon jàpp naa ne teel nañu wax ci nañu xaar ba xam fan la wànnante mujj ki gëtam xaar fan la wànnante mujj ki gëtam mais nga jàpp ne Moustapha Cissé Lo dàq gi ñu ko dàqee ci parti APR du jural musiba waa pa waa parti APR rawatina ngeen jub ci élection yi waa nga xam ne du yàgg dara léegi tey ñu song élection yi Moustapha Cissé bu jógee ci parti APR nga yaakaar du ca def dara rawatina bu rejoindre parti Sonko looy wax ci loolu. bu mu mën a danañu wàññi dara. te mu jeexantaloon bu baax a baax ci élection 2000. <laughs> <laughs> waaw tontu la rek man moom damaa démocrate li ma gëm rek lay wax te li ma yaakaar ne moom moom mooy moo nekk moom laay wax euh, benn responsable bu toll ne Moustapha Cissé Lô samp alliance pour la république ay nit gëm ko ay xale ànd ak moom di xeex euh, ak lu mën da xew bu jógee ci parti booba ñu dàq ko wala ñu bañ ko daq dana ca am ay ay ay ay ay dana ca wàññi dara mais nag. loolu lan lay tekki bis bu bàyyee ci parti bi li muy wane ne mooy ñun ñi nga xam ne ñoo des ci parti bi boobaa ñun lay wane na ñun ñu des ci des ci parti bi est-ce que mat nañ li ñu doon wala matuñu ko li ñu doon te loolu yaakaar na la koy wane du duy wax du ay conférence de presse nangam loolu élection bu ñëwee ba élection jàll ñu xam lañ doon am ci élection électorat dafa wàññeeku wala lañ doon am ci électorat dafa yokk ci la ñu xam ne ndax jàmbaar lañ mën nañoo mën mën nañoo remonter wala mënuñoo remonter mais ndax ci wàññi dara képp ku la du ci wàññi dara yo exemple rek laa la jox Moustapha Cissé Lo ak waa këram njabootu boppam rek bu ñu daan woteel APR te woteelatuñu APR loolu kay da ciy wàññi dara nga doog wax son staff politique kon bien sûr dina ci wàññi est-ce que ñun mën nañoo liggéey loo xam ne danañ suul suñu engagement yaakaar naa loolu ci war a siisee mooy ba suñu bis bu ñu demee élection locale ba ci mais wóolu ngeen ñu fi des am nañ capacité remonter lu mën a naa li gën a jafe ci àddina sa xam ne mu suñu mooy gagner commune de Touba nañ def parce que jàpp naa ne lu fi des leen la fi nekk rek mooy liggéey dem ci askan wi te jàpp naa ne depuis booba ñëpp gis nañu acte yi xam ne ñu wax ne waa PER bala ñoo génn la élection dafa jub si askan wi duñu leen gis mukk ci seeni i jafe-jafe waaye ñiy wax loolu seen xalaat la waaye ñi nga xam ne ñoo ngi suivre sa caméraman bi du ma ma bàyyi may fenn depuis huit mois ngi nii amul benn mois bu jàll boo xam ne avant pandémie bi amul benn mois boo xam ne ñaari activité COSER defu ko wala ñett COSER bu Touba di ndaw yi au delà des xam ne mooy organisation wu mag ñi ñoo ngi dem ci terrain bi di wax ak nit ñi tout récemment rek dem nañ fii ci xayra enrôlé fa plus de cent personnes yoo xam dañ leen wutal ay ay ay ay carnet de santé fayal leen un an seen seen seen seen santé loolu ñooñu ñu ko defal yaakaar naa lu lu dem la ci seen xol tey baromètre bi nga xam ne moom la ñu mën rek li ñuy def lu ñu man mooy nekk ci terrain bi di liggéey ñoo ngi ci bu élection ñëwee danañ yokk temps politique nag ak temps liggéey temps wu campagne électorale du benn moment yi temps wu liggéey la dama yor sama liggéey di ko def. bu doon ma nekk ci commission bi maa ngi sama place toog di liggéey mënoo jàpp tout temps tamit nga war a dem liggéey nekk di dem di def politique ñuy bari nag loolu lañ jàll parce que politique du métier mais bu campagne jotee nag nga xam ne da ngay bàyyi li ngay def yépp dem campagne booba la ngay gën a présence ci terrain bi mais tekkiwul ne chaque jour week-end yi defoo dara yaa ngi ci terrain bi nekk ci activité yi lu ñu bëgg mooy li nga xam ne moom moom mos a jafe Touba ndaw ñi ni nga nekk ci dëkk bi ñun ñoo ko bëgg remonter mooy victoire bi mos a jafe président de la république Touba ko ko une fois benn yoon balaa muy jeexal 2024 loolu moom wax dëgg yàlla suñu engagement la. kon yéen a ngi mandat. balaa muy jeexal laa la wax man lu ma la wax leer na troisième mandat ak quatrième mandat tudduma ko dama ne balaa ñuy jeexal ci la mandat bi jeex. mandat bi nga xam ne moom la président entamé balaa boobaa au moins des nañ fi ñaari élection mooy élection législative ak élection locale au moins bëgg nañoo teg suñu bakkan ndaw ñi ñu engagé boobu combat benn yoon benn yoon ci dundu président wala li muy nekk ci réew mi ñu mës a gagné loolu mooy suñu combat mooy combat bu mag bi nga ne man moo ma ñor maa ngi ma àndal. muy la am solo xam naa ñu tëjati bunt boobu rek ubbeeti beneen bunt muy coowal suuf li nga xam ne moo lëmbee Sénégal gi te kenn mënut a wax ba jeexal te tuddoo ko sëñ Bass nga jàpp ne ak ak caxat-caxatee amul ci suñu littoral yi nga xam ne moom lañu la ñu moomaloon suñu bopp ñu dem ba jëmmi jamono ñu ciy tudd ay kilifa yoo xam ne ñu leen di may ay hectares yu dul jeex ni ci mel na tey itam Babacar Ngom yow looy wax ci loolu bu dee coowal suuf en manière générale ci Sénégal euh, gis nga dafa bari ñoo xam ne li ma ko waxee léegi dañuy wër bës xam nga bës suñ koy wëree dañuy dégg benn coow rek ñu daw taq ca naan ay société civile ak ay nu mu tuddati lu ne bës la ñuy wut mais amul benn coow suuf bu fi am boo xam ne bu jar coow la bu dee littoral bi ñuy wax. coowal ni ngi leen jërul coow. maa ngi ciy ñëw maa ngi ciy ñëw bu dee coowul ndakaar bi ñuy wax euh, ci littoral bi yaakaar naa littoral bi foncier yi nga xam ne joxe nañ ko fa yépp ñoo ngi ko joxe bien avant deux mille dix. yi fa nekk état mënatu ci dara parce que ñi ko moomoon moomoon état la fa fekk euh, préserver na ko ba dégg nga ministre Abdou Karim Fofana nee na loolu yëpp ñu ngi koy aménager pour sénégalais yi mën cee jëriñoo kon yaakaar naa dossier boobu ñi nga xam ne ñoo ci nekkoon di wax bii ministre bi génnee wax yaakaar naa ñoom ñëpp dañoo rus te vraiment noppi nañ beneen bi mooy coowal ndengaleer yi ak ak Babacar Ngom Sedima xam nga lu ma bëgg ñi nga xam ne seen yoon nekku ngir yàlla ñu génn ci xam nga mi ngi mel ne ñaari nit ñu am problème ay nit daw di ci ci la ay population lañ yoo xam ne ñoo ngi dëkk foofu ak benn promoteur boo xam ne Sénégal la dëkk di champion te Sénégal da dafa am ñoo xam ne dañoo njublang te na fekk di wax lu ñu gëmul fii bi seen ngay dégg suñu champion yi nañ leen nañ leen promouvoir nañuy défendre suñu champion yi ñu fi créer entreprise Babacar Ngom amul mënatul Sénégal benn champion wala seriñ Mboup te tuddoo ko def ay preuve fii ci Sénégal dem ci benn gox bëgg faa liggéey wane fa ay preuve yu leer naññ te li mu wane wëniwut benn njublag boo xam ne wane na ko moo tax est-ce que loolu ba day tax chaque 15 jours yu nekk mu jël ay 4 millions ak 7 millions di ko teg ci waa loxo gendarmerie pour ñu mën a jox ko suuf si leewal ko ko daal bàyyi nag waa askanu Ndingler dama ne man maa ngi ci dossier bi dossier bi kee fi mu jaar ba am suuf si fu normal la ba léegi ñuy coow di wax activiste ak ab société civile gisagoo ku ci génne weer na fépp wane ne euh, Babacar Ngom jë dafa naa fekk wala na woon njublang wala dafa ñëw bëgg nangu suufu jàmbur ñële tamit xañ na seen suuf la conseil euh, municipal moo ñoo réunir jox ko kay ñoom ñaar ñëpp ay parti intérêt lañ li ma gëm mooy bu ñu waxtaanee ñoom seen diggante danañ juboo parce li ñëpp population bi ak Babacar Ngom ñëpp ñoo am ci Sénégal bu noonu dañ ko jox ay tubaab boobaa ku nekk mën ngaa tëb di wax loola neex wala ñu jox ay ay ay multinationaux wala dara mais ay sénégalais yu am ay problème seen biir ñu ci seen yoon nekkut li Ndoye Bane di bu dee nag Babacar Ngom dafa jox ay ay ay ay ay ay ay gendarme nangam wala nangam man de li ma gëm bu ma moomoon sama alal ay nit nar koo yàq dinaa wut lu ma ko sécurité naka la demee nag dafa jox nangam ak loolu man sama niveau information ëggu xañ na boo gisee gendarmerie wala nga gis Babacar Ngom boo ko laajee dana la sëñ Bass da ngaa bëgg a jël rek askan bi yëpp tëj leen ci benn kaaf ne duñu wax ci dossier judiciaire faaw dañuy bàyyi rek ba justice ñëw waxal boppam te chaque jour ñuy gis ne justice ñoom seen jëm bopp ñuy njëkk jalgati yoon ndax nañu war a nañu war a euh, doxee ci dossiers yi duñ ko duñ ko doxee ak parparloo sax fois da ciy am ndax yow da ngay seetaan loolu. bu ma taxal man waxuma bu yam ci wax Sénégal moom ku nekk ngi wax li la li la neex dama ne man li ma li ma bëgg wax laay wax li ma jàpp ne mooy dëgg moom laay wax damaa jàpp ne problème bu ay nit amee di ñaari problème ngay Sénégalais di Sénégalais ñoom yéen ñëpp ngeen bokk ca yam dañ caa war a def lu rafet. wax ca lu rafet dox ca tànk lu leen di jubóolee gis naa ñu ko ciy def boobu ci mënut nga noppi bu ñu demee justice ñoom ñu àtte leen d'accord benn man li ma gëm dossier boobu du dossier bu justice di àtte bu doon problème justice xam nañ ne Babacar Ngom moom moom suuf sa Sénégal yépp la leer de bu dee lu. bu ah bon Babacar moom suuf si. lu légal demal nga liir ay kayit lu légal Babacar moom suuf sa. lii problème kadu Babacar dafa ëpp barke rek ñi waa Ndingler. lu mu mën a doon man xaw ma mais bu dee lu laa la wax. parce que dañoo délibéré ci délibéré ci conseil municipal ñu jox légal mu yor ay kayitam yu légal liñ ciy wax nag mooy population bu dëkk ci barab sàngam dañoo am droit ca suuf sa am droit bay fa bala ñu leen waroon a jox war nañoo def nangam war nañoo def nangam loolu nag li ma gëm li koy réglé mooy ñu waxtaan jéem a juboo alami yaabal Babacar Ngom xool bu dee dañoo bëgg ñu employé leen ay nit xëyru ñu bu dee dañoo bëgg lañ di wax na doon jàmm rek man jàpp naa ne mooy muy lu am solo xam naa suñu question bu mujj mooy euh, ndox mi nga xam ne ñàkk na ci dëkk bu sell bii du tuubaa euh, dëkk euh, koñ yu bari wala gox yu bari tey itam ñu koy jànkonte te gisuñu kenn yi yàbbi ci yéen ban ban doon ngeen ci bëgg am naa la surprise nga ndoxum Touba fekk ñu ngi ko yore ñu problème du ci mos a jóg Touba dafa nekk tout village dañuy waxante dëkk Touba mooy deuxième ville ci Sénégal problème ndox dañ ko war a lijjanti ñu lijjanti ko une fois une bonne fois pour tout mu jeex tàkk ñu xam ne ndoxam Touba lii la Touba ñàkkum ndox mi moo gën a tuuti ci problème ndox mi Touba ñëpp dañuy branché nañ ci ndox yi di naan te duñ fay ndox te ñu li ñuy jënd ci ndox moo gën a seer li ñuy fay ndox kër gu ne gàtt gàtt boo xëyee da nga ñàkk 500 francs wala 1000 francs ci ndox yu neex yi nga xam ne ndox mi sax silul parce que ay ay camion hydrocureur ñoo koy dem yanu ji fële ca saate wala wala ay sareeti mbaam indi ko jox ko nit ñi ñu koy naan problème ndoxu Touba dañoo war a toog sëriñ bi toog état toog ñu toog ay Touba ca kanam yooyu mu mënuñoo régler problème mu ndoxu Touba loolu mooy dëgg ku ko waxut da nga koo ragal dëgg benn yoon lañ koy wax mu leer ci problème yi duñ fi jóg ay pompe waaye lañ ciy def ñoom est-ce que est-ce a ngi jug di ko ci def forage pour de rural forage ay village waa lay yor forage mënut yor benn population boo xam ne mat nañ un million cinq cent personnes ñaata forage ñoo boo defar beneen panne forage boo def beneen panne solution da nga koy régler benn yoon nañu indi Lac de Guiers bi Touba ñu branché ko ci dëkk bi ñu bëgg a fay te di fay ñi nga xam ne bëgg ñoo fay bëgg naan ci ndox mu ndox mu am xorom yi ñu ñu ñu bàyyi leen ñu naan mais problème ndoxu Touba romb na ay forage yu panne parce que ñi seen forage panne sax amuñu jàmm ci ndox yow noonu ndoxum Touba mi loolu mooy dëgg naanoo ko sa caméraman bi naanu ko man naanu ma ko ñi am barke eau minérale la ñuy naan ñi amul barke ay bidon ndox de la ñuy jënd ak fanweer problème Touba bi gën a mag mooy dañoo jàpp ne kenn warul fay ndox te bien sûr que ñoo ngi fay ndox forage yi bu paanee waa Touba ci kanam li ñu koy defaree du xaalis sëriñ bi koy jël di ci def xaalisam loolu du xaalis pourtant li ñuy fay ndox loola dañ koy entretien forage ña fay liggéey ñu leen ciy fay ña liggéey ñu leen ci fay kon nit ñi ñu ngi fay ndox ñiy jënd ndox ñoo ngi fay ndox pour pourquoi ñuy fay courant courant ak ndox ñoo yam pourquoi ñuy fay ñuy fay ñuy fay téléphone ñaata ngay jënd crédit loolu yëpp moom ndox yam ndox mu sell te baax ku ko bëgg da ngaa war a fay dañoo war a xëcc ndox mu ñëw ci dëkk bi ñu fay Touba dëkkub xéewal la donte sax dañ koy def mu bañ a mel ne yeneen dëkk yi kër gu ne joxe 1000 francs wala kër gu ne joxe 2000 mais situation bi ñu ne ma buñ ci jógee di bënn ay forage dëkk bu tal ne Touba ay forage yoru ko tubaa ay forage ay village lay yor buñ fi bënn 10 forage heure bu ñëwee dinañ bëndaat 100 forage te Touba mi ngi yokk rek te taxaw kon nañ seet beneen solution Ah, muy la am am solo sëñ ba sëñ ba Basiirou souligné ko macha allah kontaan nañ xam naa li ñu tërale woon ci waxtu dafa mel ne jeex na sëñ Bas looy tàggoo. waaw maa ngi lay sant bu baax euh, di la gërëm ci invitation bi malgré xat na ndax liggéey bi ñu fekk waajaluñu émission ba liñ ci waroon wax yépp waxuñu ko ci waaye lépp loo xam ne rek njuumte la nit dégg ko ci ñoo ngi ko ciy jéggulu bu baax a baax a baax xam ne wax lu rafet rek moo na tax a jóg ndax ñun bëgguñoo wax di ñaaw ñun dañoo gëm ne. Euh, fal yàqul xeyran aw li yasmut loolu la ñu jàng dañuy wax lu rafet rek wala ñu noppi ci mbir mu mën a doon nag lu baax lañ jublu woon képp ku ci dégg loo xam ne tamit xañ na neexu la ñëw la koy jégalu di nuyu ñëpp di sant ñëpp di jégalu bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatulah. macha allah mu nekk euh, sëñ Basir Mboup euh, di euh, coordinateur COJER fii ci dëkk bu sell bii di Touba macha allah ñoo ngi koy sant bu baax ci disponibilité bi nga xam ne may nañu ko ñëw fii ci 24 actu Sénégal mu nekkoon lu ama am solo waaye ñu leen wax rek seen émission bi ñu duppee li ci réew mi nii lay amee chaque 15 jours yu ne. képp kuy ndaanaan rek ñu koy dëkk ñu koy dégg ci euh, Sénégal sax la ñuy wax dees nañ ko mën a dalal fii ci euh, suñu palaatoo incha allah waaye tamit ñu leen wax ne yéen ñi nga xam ne yéen a bëgg a sponsoriser seen émission bi ñu duppee li ci réew mi man ngeen a woote ci numéro bi ci di daw ci ban écran bi incha allah dinañ jokkoo ñu def ak yow ay euh, tawféex yu baax a baax kon ñu ngi leen di sant ak ngërëm yéen internet yi safoo tey bàyyi xel seen site bi di 24actu ba beneen yoon incha allah